nekkatuñu léegi ay média moo tax bi inspecteur bi kii ñëwee fekk leen fa ñoom dañ leen fa mm-hmm. jëlee influenceurs yi mm-hmm. ba ñu ñëwee fekk leen fa ci mm-hmm. ñu def as kii parce que influenceur day déplacé wu waaw parce que après monétisation YouTube ñëw balaa ngay dem yow léegi toog ci presse bi ñu lay fay dem sa nga dem tey créer sa benn site chaque jour YouTube chaque weer YouTube fay la nga xam ne Sénégal léegi ku fi wax wax bu rëy ku fi sos sos bu rëy ku fi ku fi wax lu dul dëgg yow la ñuy gën a déglu saa yow yeewoo boo xëyee nga topp loolu léegi nag presse bi mab mooy journalistes yi mm-hmm. ñoom ñoo amatul ñoo am ñoo am ñoo am ñoo amul complexe ñoo amul éthique nekk ay complexe mm-hmm. journalistes yi ñoo nekk léegi ay ay ay nit je dis pas tous les journalistes mm-hmm. am na sax ñoom duñu ñu mais c'est-à-dire am na si ñoom du journaliste mais les vrais journalistes am journaliste bu ñu parce que dama je prends l'exemple temps yi chroniqueurs yi toog di interpréter l'avenir de Pape Djibril Fall ah, man c'est-à-dire soxor moom foofu moo ma jaaxal. mais man euh, tey tey gis naa ci benn journaliste bu ne le plus grand perdant yow mi toog yaa perte xam nga c'est-à-dire. man amul man soxor boobu. c'est dama gis yow Pape Jibril Fall. CESTI la jóge nekk journaliste. jóge journaliste nekk na au moins parlementaire. Ah. te te te te foofu parlementaire boobu damay taxaw tuuti Pa euh, euh, Pape Djibril ñaata journaliste avant lui. ñaari journaliste avant lui ñoo dem élection te mosuñu am dara parce xam nga sénégalais yi abu euh, seen problème mooy buñ la benn Aïssatou Diop Fall ñu tàmm ko gis ci wax. pour ñoom noonu nga war a. pour nga war a deewee. micro nga war a deewee micro nga war a boo deewee dañu la war a micro. boo xëyee suba dégg tale waaw ak ak bi ngay wax. boo xëyee suba ay communication. waaw pourquoi waaw la ko jëlee lu tax.